weesu ci réew mi TV nag àdduna jëmale nag ci bëri bokk na ci wàllu réduction des comptes wàllum parité wàllum leadership féminin ak yeneen ak yeneen yër leen boobee yëglekaay ba tey ci yëglekaay bi àdduna jëmale nag ci quinzième sommet de l'OCI bi nga xam ne rek doon nañ ko amal juróom fukk ak juróom-ñaar ci ay dëkk yoo xam ne rek war nañoo seeti waa CPI jëm ci waa Israël ca Banjul la ñu doon amalee quinzième édision bu sommet de l'organisation de la coopération islamique le soleil yëglekaay ne quinzième sommet boobee nag ñu doon amalee ca Banjul nag président Ndiaye nag ma ngay àddu nga xam ne rek moo dal ci ba yëglekaay bi dellu soit ci déclaration yi mag yi nga xam ne rek tukkee na foofee ca Banjul yéenekaay bi ne président Bassirou Diomaye Faye nag ma ngay amuk bëgg na koo indi yéenekaay bi ne président ma ngay accélérer la cadence Vox Populi moom dellu soit ci Pastef mi nga xam ne rek ma ngay judduwaat fas doxal ay projet ginnaaw bi ñu ko tasee nag daal di koy retiré ci liste électorale yi yéene kaay bi ne Pastef dellu siwaat na fas yéene doxal parti boobee amal ndaje mu njëkk séq ñi nga xam ne rek ñoo bokk ci bureau politique am Ousmane Sonko nag ma ngay xam ne ni daal daañu dooraat lépp loo xam ne rek mooy yëngu-yëngu waa Pastef doon amal daal di amal ab congrès boo xam ne rek ñu ngi koy waajal filee ki weer yemu ca moom Ousmane Sonko nag di xam ne ni daal lépp loo xam ne ay dige la woon rek yi mu digoon askan wi nag daañu fexee matal ko moom jiital Pastef ma ngay xam ne ni nag partem boobee dina lu jëm ci wàllum option panafricaniste et souverainiste ab wërngal boo xam ne rek fas yéene na ko amalee ca Guinée Conakry ca Mali ca Burkina Faso ca Niger ngir nag daal di gën a lëkkale ay dooleem nag jëmale ko ci ay sollicitation yoo xam ne rek bàyyeekoo na ci ñooñee nga xam ne rek ñu ngi ci déndu Afrique l'info yëglekaay daal di xam ne nag ne wërngal boo xam ne rek fii ci déndu Afrique la ko war a amalee waral mu ne Pastef nag fas yéene naa jëlaat beneen kab bu yees Walf Quotidien xëy bind ci xëtam bu njëkk ne Sonko à la conquête de l'Afrique Le Quotidien yëglekaay jëm ci remobilisation bi nga xam ne rek nemmeekuwaat nañ ne Macky Sall mu ngi koy amalaat jëmale ko ci njabootam yéenekaay bi ne ginnaaw Dakar bu Medina Gounass ab délégation bu bàyyeekoo ca nag yebal na leen ci ay militants am ma ngay xam ne moom Macky Sall ci biir yëglekaay bi ne dañoo war a boole suñuy doole nag ngir mën a liggéey suñu base l'informateur dellu soit ci wàccaay wi nga xam ne rek moo jëm ci élection législative yi nga xam ne rek ñu ngi koy waajal ne APR nag ak Macky Sall jamono ji ña ngay doxal ginnaaw ñaari weer bi mu demeek léegi nag ma ngay boolewaat ndànk-ndànk nag ñi nga xam ne ñoo di ay militants ñoom ab délégation bu takku nag la yebal foofee ca Daaka daal di amal ab ndaje moo xam ne rek cib téléphone la ko jaarale foofee ca Kaffrine lu jëm ci wàllu rapport des cours de contrôle yi nag kii di Abdoulaye Seydou Sow ma ngay dalal xelu ñi nga xam ne rek ñoo di ay ñooñam laas yëglekaay dellu suwaat ci li nga xam ne rek moo jëm ci politique ak taxawaay bi nga xam ne rek kii di Macky Sall namm na koo amal ak Ousmane Sonko yéenekaay bi ne ñoom ñaar ñii nag ña ngay tàmbaliwaat jéego yi lu yi nga xam ji nag bëgg ngir jiital ko ci yile jongante Vox Populi moom dellu siwaat ci lu jëm ci wàllu cumul de fonction yi nag ne Birame Souleye Diop Ousmane Sonko ak Yankhoba Diémé nag ñoom ñëpp tekki nañu seen i ndombal tànk a Dièye nag moom ma ngay xam ne ci biir yëglekaay bi ne fan yi ñu jëm nag moom itam dana tekki ndombal tànkam L'Observateur xëyee ab waxtaan woo am solo woo xam ne rek séq na ko ak ki nga xam ne rek moo di Ibrahima Amidou Dème yéenekaay bi ne juge dem ma ngay secourir waa magistrature bi nag moom ma ngay xam ne ci biir yëglekaay bi nag ne faaw ñu moytandiku nag loolee ñu dippee le gouvernement gouvernement des juges ba noppi xam ne ni nag njiitu mi moom am na sañ-sañu di fal ak folli ku ko neex moo xam ci administration bi la ci militaire yi wala ci kilifa yi waaye nag amul benn sañ-sañ ci magistrat yi la tribune yëglekaay addu jëmale ci kàddu yi nga xam ne nag Madiambal Diagne yëkkati na ko nag jëmale ko ci njiitu réew mi di Bassirou Diomaye fay nag ci yéenekaay bi ma ngay xam ne nag ne état bu Sénégal amul sañ-sañ di doxal lépp lu mu bëgg nag lan moo waral ñuy dakkal liggéey yi nga xam ne rek moom la ñu tàmbali lépp li ñu war a def rek dafa war a fekk mu war a méngoo ak yoon Modou di ko feelu ci libération na dakkal gi ñu dakkal chantier yi nga xam ne rek moom la ñu doon tabax fii ci littoral bi nag président Bassirou Diomaye Faye amu ci benn droit 24 heures yëglekaay dellu siwaat ci li nga xam ne rek moo jëm ci chiffre yu doy yi nga xam ne rek am na ci wàllu cancer fii ci réew Sénégal yéenekaay bi ne lu toll ci fukk ak benn ci ay junniy doomi aadama nag ñooy dund ak lii di cancer juróom-ñetti téeméer yi nag mi ngi dal tout tànk yi Vox Populi addu jëmale tey ji nag ci ayu bés gu doy waar gi nga xam ne rek dund nañu ko fii ci réew Sénégal ci diggante Saint-Louis Sédhiou jàpp xuddoos nag ay doomu aadama yu ñàkk seen bakkan ñaari xale jigéen yoo xam ne rek faatu nañu ginnaaw ab dal boo xam ne rek moo dal ci seen kaw foofee ci diwaan bu Saint-Louis ab sept place daal di mbëkk benn camion bu paanoon juróom-ñaari nit daal di cay jëlee ay gaañu-gaañu ñetti gën caa metti le ca Medina Fall foofee fanweeri yaa dama nag jëlee ay gaañu-gaañu ginnaaw bi fa ab woto saaraane nag daal di dugg ci ab l'école jeexale yëglekaay yi ak lu jëm ci wàllu làmb yéenekaay yu bëri bëri dellu siwaat ci victoire bi nga xam ne rek Eumeu Sène am na ko ci kaw Sa Thiès